voilà defe liñu yek mom la ñëpp yek ñun ñëpp ñoko ko euh nervi euh jël nañu def nañu liñu bëgg def et inshallah allahu rabbi comme niñ koy waxé rek euh kenn ku nekk ci ñom j'en suis sûr et certain que biñuy def liñuy def ils ont pris leur responsabilité ndax gis nañ fi jurisprudence Guinée Conakry fan yi passé ay juge conseil constitutionnel ay délinquants yo ils sont à la retraite ñom ñep ñu ngi ci kasso bi tay Guinée Conakry loolu la yi def ci suñu conseiller constitutionnel bi pour rafetal ko euh nenañu dañu Nous walé dañu rek dañu nous Karim pour rafetal euh, liste définitive bi Karim wad mo ci euh, liste définitive bi comme ni ngeen ko tamit Euh, duñ leen ko waxal waaye defuñu ci Ousmane Sonko ni figure pas donc Bassirou Diomaye fay moo dem ak Cheikh Tidiane Dieye ak euh, suñu euh, pa bi kii ngeen jéggal ma tuuti rek Bassirou Diomaye fay ak Cheikh Tidiane Dieye ak Habib Sy la ñu bàyyi ñu jàll ak euh, Déthié Fall ci Yewwi Askan Wi ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo jàll euh, ñun de toute façon dañuy xaar comme niñ koy waxee toujours euh, kilifa yi joxe mot d'ordre ñu doxal ni ñu war a doxalee incha allahu rabbi waaye ba fi ngeen di yëg nii bëgg nañu ngeen xam ne ñoom def nañu lépp lu ñu man nee nañu yaayoo nee nañu recalé nañu Ousmane Sonko parce que figuré ko ci li nga xamné mom moy liste yi waaye comme ni ngeen ko xamé defe naa euh, Pastef ak communication le président Ousmane Sonko nous a toujours dit que ce projet n'est pas une personne Ce projet la té projet comme ni ma dit ko waxé avant dafa un architecte projet bi moy le président Ousmane Sonko mais c'est pas nécessairement dit que mom moko wara doxal Dédé. mais mon architecte bi tek na projet bi ba paré té ñun ñëpp kenn ku nekk ci ñun tay xam nga luy projet bi li daf ñu wara a pass pas-pas ñu jom yok ñu fulle yok ñu fayda ndax il faut ñu xamal gouvernement Macky Sall ne kérok ba Firawuna né dombu gor du judd ci dekkam yalla daf ko indil dombu gor bu koy ñëf ci bir palais donc dañuy yëgal Macky Sall ak ñi mu àndal que allahu rabbi billahi billahi wallahi tallahi lazim le 25 février di ngeen allah sénégalais Nous ñun ñep nañu xar suñu le président Ousmane Sonko nous a dit té nous ñep xam nañu lim wax ce projet n'est pas un projet d'un individu un projet bi liñ ci def def nañ ko liñ te yéen ñëpp Sénégal pare leen ay kaddu nag gañewul élection ay kaddu képp gañewul élection de élection ay carte moo koy gañe ak pas-pas ak yéen xale yi ngeen gën a takku Sonko namm naa ñun ñëpp namm waaye Sonko namm naa gañewul ay élection ay élection ay carte moo koy gañe te sondage yi yëpp wane na ne bu ñu demee élection ak bandi yi midi élection yi faranku midi mais day fekk ñu génn ñu voté dem leen jëli seeni ay kart ñun ñëpp ñu préparé daas fanaanal sax dootul wax ji ku nekk na jëli kartam nga préparé sa kër nga préparé sa koñ nga préparé sa dëkk buy ñuy ne salaamaaleykum balaa ñuy ne maaleykum salaam élection yi Francoulaye loolu nag ci ñun la des waaye toog fii di jooy voilà Famporongoñ Sonko waxon na len ne du waxtu joy li du waxtu joy waxtu pas-pas la du waxtu joy waxtu xeex la tay la xeex bi tambali erreur yi ñu dal ci aduna bi yeb erreur yooyu dinañ ko mëna a rectifier nañu ko ne 1500 détenus politiques ñoo nek ci kaso bi di ñu xaar nañu ko suñu ñaari kilifa yaangi ci bir kaso bi di ñu xaar te ci ñun la dépendre pour ñu libérer leen te ñun la dépendre ñu wat Sénégal ci loxo yu baax yi ci ñun la dépendre c'est pas le moment de se plaindre c'est pas le moment de leur donner ce qu'ils veulent c'est pas le moment du du moment bi nañu xaar kilifa yi ñu joxe ndigal te wor na mané Ousmane Sonko nit la ko xamné c'est quelqu'un qui est déjà prêt et il va donner dina joxe ndigal bi te ndigal li su wàccee incha allahu buñ ko jëfee man maa leen garantiral la nuit du 25 février on va le célébrer au Palais te ñu ngi koy doxal fi mu ne ñu waajal un million deux millions de sénégalais ñun ñëpp centre ville keroog bu ñu voté ba pare képp ku voté ba pare ñu dem palais de la république képp ku voté ba pare ñu dem palais de la république pour Macky Sall benn tappale du jaar ci élection yi bu ci yàlla ànde nañu xaar kilifa yi ñu joxe c'est pas le moment de se décourager c'est pas le moment de se fâcher c'est pas le moment c'est pas le moment ñun ño nek en haut ñun yor je vous garantis que nous ño nelawul ñu ne billahi wallahi tallahi donc ñun sommes len may li ñu bëgg man de personne je vais faire battre campagne dans toute la diaspora. Je sais que vous aussi, vous allez battre campagne dans tout le Sénégal. inshaallah Rabbi, ce projet va gagner. Allah, Rabbi, this project will prevail. Allah, Rabbi, ma au projet gagne. Inch'Allahu Rabbi, ñim projet be gagner Insha inshaallah Rabbi, ke projet gagner nea. Inch'Allah. igana nambara suwaro kane. Inch'Allahu Rabbi, o wadangina sui. Guy, l'essentiel mooy suñuy candidat jàll nañu nañu protéger suñuy candidat ci weyu béy yi ma mujjee jot nee nañu ñu ngi menacé ne dañoo bëgg a liquider Bassirou fay ci weyu béy yi ma jot nee nañu dañoo bëgg a liquider Bassirou Diomaye Faye ndax Ousmane xam nañu fiñ ko to fi ñu toll ak moom waaye comme àdduna bi yëpp a xool nee nañu nañu jéem dara ci Bassirou Diomaye candidat yi dund leen kenn ku ñu rey ci yéen gars yi dañuy jéem a reporter élection yi te am na booy yu faible yoo xam ne njëgu sécurité sax amuñu ko ñu bàyyi leen ñu jàll ci liste bi mooy seen liste bi xam nga liste bi ñoom dañ ko defar ñu bari ci list bi ñoom ñoo leen ci dugal ñoom ñoo jël seeni ay parrainage jox leen yaakaar nañ ne dañu bëgg a nelawal doomu aadama yi déedéet incha allahu gars yi taxaw leen tey la élection yi tàmbali xam leen ne Ousmane Sonko mooy Jomaay Ousmane Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu nekkoon président de la République sax Jomaay mooy nekk main droitam donc lu mën a doon ci àddina takk leen seen tànk tubéy te ñu xaar les résultats définitifs ñu bàyyi kilifa yi wax ñu li nga xam ne moom la ñu war a def incha allahu rabbi ñu dem ñu jëli réew mi te ñu teg ko ci ay loxo yu baax te ñu changer Sénégal ndax Sénégal ay bande ko jiite ay reykatu nit ñoo ko jiite ay fenkat ñoo ko jiite ay doorkat ñoo ko jiite ay njuuj njaajkat ñoo ko jiite Amadou Jul Débat bii ñu jiital moom moo dugaloon Ousmane Sonko ci kaso bi sénégalais fu Amadou Ba jaar ci Sénégal nañ ko fayu nañu fayul le président Ousmane Sonko nañu fexe ba Amadou Ba bu mu campagne ci Sénégal du campagne fii la ci diaspora bi garantir nañ len sen pale. ko contrer les sénégalais faisons face aujourd'hui le 25 février Taylor, la nañu mel le 25 février tey na ñepp jëli Nous ay carte ñepp taxaw ñepp paré té ñu xamné combat bi mi ngi a ce combat est le nôtre le gouvernement Boubès, bi incha allahu rabbi ñun ñoo koy tabax bu sommes yàlla ñun Sénégal te ñun ñooy le prochain président du Sénégal quel que soit leur deal et leur banditisme et leur dégâts billahi wallahi tallahi ils paieront nous vaincrons les patriotes à travers le monde entier nous préparons. wu te xam le 25 février Taylor.

dañ leen ne yen da ngeen ñu bëgg a reylu reylu seen njaboot ba léegi muccu leen yéen ñëpp danañu yéen ñëpp danañu jëflante ak yéen Badio waxoon nañu le yaag sa njaboot nee nañ la bis boo deeyee yow billahi sa nguur gi nguur gi dina daanu te dinañ la sulli day ci sa bàmmeel lakk la billahi wallahi tallaay boo leen yaakaaree ne banditisme moom ngeen di doxalee réew mi yéen a ngi nax seen bopp réew mi Sénégal la réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn ci yeen eppele wuñu ci te incha allahu rabbil ah incha rabbi ñu ngi sante yalla bu baax ndax ñun dañoo gëm yalla ñu ngi sante yalla bu baax lepp lu ñu jox nangu nañ ko lepp lu ñu limu tek suñu kaw nangu nañ ko incha rabbi ndax president Ousmane Sonko dafa ne lepp lu mëna xew lu ci lu baax ñu ne alhamdulillahi rabbil alamin lépp lu ma ñu mën a dal aussi ak nuñ ko man a jàppee ñu ne alhamdulillahi wala ala léegi nag alhamdulillahi ala kulli lépp lu mën a am d'accord nañ ko te xam ne yàlla moo ñu ko teg te xam ne yàlla lépp lu mu dogal ci doomu aadama moo gën ci yow donc damay ñaanaat patriotes ñu xam ne waxtu xar sa tànk tubéy dafa jot du waxtu parparloo ku mere sa morom jéggal ko kiñaan bari na ci mbir dina am ay manipulateur yu ñew diñu ñu manipuler dina am ay nit yu ñew di ñu féwalé nañu concentrer sur l'essentiel l'essentiel est de reprendre ce pouvoir l'essentiel est de reprendre ce pouvoir l'essentiel est de reprendre ce pouvoir dégg Damane. encore une fois Damane. encore une fois l'essentiel c'est de récupérer le pouvoir loolu rek mooy suñu essentiel léegi nag maa ngi invité tout jeune sénégalais diñ di non nga merak nga nga nga nangook élection yii passé gis ngeen ne Ousmane Sonko moo taxaw indiwul xaj ak seen ñëpp la àndal ay député wàlloog ay député yeeweeg lu ne mu indi fal leen yéen ñëpp nañu man ci ginnaw candidat bi nga xam mom la Ousmane Sonko tànn Ousmane Sonko buy tànn Sénégal yépp lay bu ken mer bu ken décourager non non parce que mer ak décourager day tax do yegg fi nga bëgg jëm sénégalais yépp lañuy wo dama ne li du mbiru Pastef li mbiru Sénégal la c'est le don de soi pour la patrie Ousmane Sonko musul né don de soi pour Pastef ndax bu don Pastef rek gis ngeen nee nañu nañ ko donc ça n'est même plus Pastef donc là là, c'est Sénégal c'est le Sénégal donc ñun ñëpp nañu te préparer élection yi tey la rabbi billahi ah le 24 fév le 25 février Macky Sall dina am lu ko le 25 février Macky dina joy. Macky ñi mu àndal dinañu billahi le 25 février Macky ñi mu ak ñi ko bëgg yëpp danañu jooy Amadou Jules Deba le vingt cinq février di nga xam ne Sénégal yow mënoo fa gañe ay élection di nga xam ne yow Sénégal mënoo fa gañe sa koñ dama ne gars yi nañu taxaw ànd doon benn say bu ñu découragé de man tey laa gën a am courage xam ngeen lii bi mu xewee nii man lan laay waaj a def damay waaj a dem seetaani basketball New York Knicks damay dem léegi uti billet dem ci stadium ba seetaani match seetaani batse bi féexal sama xol dara du du Macky Sall mënul yëngal suñuy xol neena len we are happy people dem len lekki bu baax ngeen naan bu baax dem len lekki bu baax ngeen naan bu baax ku am ay vitamine jël say vitamine te préparé wu pour campagne campagne bi dinañ ko battre te billahi wallahi tallahi danañu duma Macky Sall bala midi bu ci yalla ande Ousmane Sonko dinañu jox ndigal te ndigal li bu wàccee dañ koy woyal incha allahu rabbi ndigal dina wàcc te ndigal li bu wàccee dinañ ko woyal incha allahu rabbi incha allah alhamdulillahi ala kulli haal alhamdulillahi ala kulli haal alhamdulillahi ala kulli haal bi nag comme ni ma leen ko waxee du moment wu xeex du moment wu parce que minute boo jël di daggasante ñoom jël nañ ko di tabax seeni ay ay militants préparé wu leen nañu focaliser wu koo man ñii kenn ku nekk ci ñoom ñun xam nañu ne ñun ñoo leen man téeméeri junni yoon ñoom xam nañ ko bu dee xeex ñoo leen ëpp fit bu dee doole ñun ñoo leen ëpp doole ñoom xam nañ ko waaye bu ñu daanu ci seeni ay pièges préparons-nous à battre campagne yëg nañu lépp loo xam ne ñu ngi koy doxal yëg nañu seeni ay tappale seeni ay plan dinaa leen dévoiler plan yi ñuy plan ci fan yi di ñëw bépp nervi boo yaakaar ne ñu ngi lay embauché intimideurs yi tappalekat yi loolu bu leen ci wori lépp dinañ ko dévoiler seeni plan yépp dinañ ko teg ci kaw table te dinañu dinañu préparé wu te dinañu dem élection te dinañ leen duma billahi le vingt cinq février di ngeen xam ne lépp dëgg la tappale boo leen mën a indi ci àdduna bi di ngeen xam ne dinañ ko contrer te ñun ñoo leen ëpp doole te dinañ leen duma bu soobee yàlla gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ko tàmbalee ci suñu avocat yi maître Ciré Clédor Ly suñu avocat suñu mandataire ak avocat yi mu àndal yëpp maître taal yeneen avocat yi maître si yeneen avocat yu baax yi yéen ñu ñu taxaw ba fii te xam naa ne pareegu leen ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp billahi wallahi taala ñu ngi leen di sant te Sénégal amel na leen njukkal journaliste yu bax yi ak juriste yi yeen ñi ñew ci télé yépp wax dëgg toog fii waxal Sénégal dëgg indi dëgg bi teg ko ci kaw table indi article yi teg malgré les manipulations indi ngeen lépp loo leen xam ngeen teg ko sénégalais yi xam ko yéen it ñu ngi leen di sant di leen gërëm xam leen ne amuñu seen pay suñu kilifa yu mag yi El malik Ndiaye El malik Ndiaye yor ki nga xamne mom moy kaddu Pastef El malik, El malik, ñu ngi lay sant di sante ñom Biram Souley Diop di sante ñom Abbas Fall di sante ñom Amadou Ba di sant ñëpp di sante Ayib Dafe di len sante di len gërem waaye election bi ñaan nañ len ngeen xamne bi suñu election la ñun doomu Sénégal yi promettre na len man Ousmane Tounkara fi ci diaspora bi quatre-vingt-cinq à quatre-vingt-dix pour cent dinañ leen ko jox bu soobee yàlla yéen ñi nekk Sénégal aussi assuré leen ñu ko promettre nañ leen diaspora bi on vous donnera quatre-vingt-cinq à quatre vingt pour cent loolu promettre nañ leen ko bu soobee yàlla léegi yéen ñi nekk Sénégal assuré leen kenn ku ne na assuré ko ñam kenn ku ne na assuré Pastef kenn ku ne na assuré siège kenn ku ne na assuré ko ñam assuré leen bu soobee yàlla élection yii incha allahu rabbi balaa midi mu leer man de jobbal naa sama bopp campagne bii aw ma benn soxla amatuma benn yitte ngeen déglu ma nag képp ku may woo woowee ma campagne foo war a voté ak noo ci mën a jàppee kenn bu ma woo pour ay soxla personnel c'est pas maintenant les choses personnelles sont à côté mbiru personnel yëpp tegal leen ma ko boor man Ousmane Tounkara pare na dugg ci terrain bi tilim incha allahu rabbi tey laay enjoy life tey moom bu soobee yàlla danaa dem enjoy sama bopp lekk ba suur nelaw ba mandi lekk ba man eh, naan ba mandi nelaw ba noppalu jógewaat commencé waat samay entraînement ak doole incha allah dinaa campagne ba campagne sappi leen te Sénégal dinañu campagne ba campagne sappi leen te dinañ leen duma incha allahu rabbi gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant nag activiste yëpp sympathisants et partisans dis leen s'il vous plaît focalisez-vous Gisna naa yep yépp ñu ngi dugg ci jëm len divertir focalisez-vous len. bu len nangu ñu divertir len. concentrez-vous sur l'essentiel yéen ñep dañ len soxla Ousmane Sonko waxoon na ko on a besoin de tout le monde Ñep la soxla bu len nangu ku len divertir c'est pas le moment de diversion nañu indi seeni ay football dinañu seetaan bu Sénégal gagné dinañu célébrer continuer waat mais finale coupe d'Afrique le 11 février. février est la campagne bi di ubbi inshallah rabbi gars nañu concentré wu rek inshallah nañu focaliser wu te inshallah le projet va gagner billahi projet bi dina gagner billahi projet bi dina gagner gagné na nak ba nopi inshallah allahu rabbi gars ngi sante ñep di gërëm ñëpp di leen joxaat dig daje incha allahu rabbi suba même place même heure lépp loo xam ne aussi bees na ci li ñu wax ni bu fekkee am na dara lu bees dinañu génnaat ñëw waxtaan ko ak doomu sénégalais yi waa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.